leen tuddee Matlabul Fawzayni kaaraangeeg dëkk bi Matlabul Fawzayni kaaraangeeg dëkk bi si Muntaxa moo leen tuddee boo jógee Touba ak fii 14 kilomètres la nga def ko ñaari yoon muy 28 kilomètres mu tuddee leen Matlabul Fawzayni ñëw dëkk fii nekk ci jàmm amul benn jafe-jafe ay murit lañ saa deex na Matlabul Fawzayni Matlabul Fawzayni Matlabul Fawzayni Matlabul Fawzayni moo leen tuddee Matlabul Fawzayni kaaraange dëkk bi Matlabul Fawzayni kaaraange dëkk bi si Muntaxa moo leen tuddee boo jógee Touba ak fii 14 kilomètres nga def ko ñaari yoon muy 28 kilomètres mu tuddee leen Matlabul Fawzayni ñëw dëkk fii nekk ci jàmm amul benn jafe-jafe ay murit la saa def na Matlabul Fawzayni Matlabul Fawzayni Malabul Fawzayni Malabul Fawzayni